maa leen lu nice cool. nice C'est une grande réussite. jusqu' au mouvement événement bon, à envie tout le mouvement réuni les générations. C'est un plaisir on fait un, gros big up. on fait un gros big up à Babsi euh, comment il s'appelle À Papa Alioune la RTS parce que bon télé la le xam dañ ko jëloon en otage le rap Galsen comme dafa engager dañu ko mettre de côté xaw ko boycotté un peu Papa Ali bi ñëw la première chose bu mu def mooy nous appeler. il faut qu'on euh, rende un hommage au hip-hop galsen et il y a une date qui arrive boo xam ça va symbolique muy la fête de la musique donc ñu ko c'est une bonne chose Moi, ñun ça fait deux ans presté wuñu namoon nañ joué aussi le rap galsen soxla woon nañ ambiance yu parce que dëkk bi un peu y avait trop de politique trop de problèmes gars yi tàlluñu un concert je pense que les xel

ambassadeur yi nga xamantene papa li Alé jël na leen ngir ñu gën a jëmbal RTS waaye bëri na ay politique yi nga xamante ne jur na ko su ma la Wally Seck ak ñeneen waaw loolu dafa laaj ne ñiy mag nañ jël un peu nañ jël toujours un peu de recul ñu xam ni sagesse bi ñuy am ndaw yi mën nañ ko bañ a am ñoom patience bi ñuy am ndam ndaw yi mën nañ ko bañ a am ndaw yi dañoo jóge fu metti seen xol yi dafa gaañu ba léegi wérewul donc am na des choses qui sont passées

am na lu des loo xam ne ñoom baale buñ ko xëy ils ont besoin de temps pour se calmer un peu mais le fait que ñu génn noonu su leen nit ñi affronter rek day jur benn genre comment ñi mag ñoo war plus de recul plus de sagesse ñi tàng dañuy xaw am xadar suñu waxee lii du yoon waru ko def gars yi ne noo xam nga expliquer leen wala suñu souligner des choses qui sont passées nit ñi comprendre leen seen frustration may leen un peu de patience jeunes yi soxoruñu te leer na ma ne ñuy wax ñëpp bëgg nañu waali tu vois

leneen li si des no comment mënu ma si wax xaw ma nu mu demee gis na image yi ñaawlu naa ko comme tout le monde mënu ma ci sori li ma xam mooy dëkk bi am na yoon donc ñu ñëpp duñ doxantoo ak paaka ñu ñëpp duñ doxantoo ak jaas ñu ñëpp duñ fajal suñu bopp so daf nday yéen a ma dara lu bon maa ngi koy ñaanal mu am jàmm mais victime bi moom laay gën a protéger parce que du demee noonu quoi warul demee noonu so bugguma ci sori bugguma tooñ all maa leen bëggee Hey, ma nigga. waaw c'est des choses qui arrivent nous ngi koy ñaawlu. le ministre a fait une descente là-bas ñu ngi koy Il n'y a pas eu de mort et tout ça Nous ngi ñaawlu. keroog bu ñu demee ce dialogue bi sama wax bi yëpp loolu la condition de de euh, carcérale bi surpopulation l'enterre des dossiers man que laa doon wax ce dialogue bi ma demee kon xam nga mënu ma rafetlu donc j'ai vu que le ministre était là-bas pour calmer la situation J'espère que ça va s'améliorer et que nous n'avons qu'une occasion d'accélérer les choses parce qu'on a besoin d'humaniser les prisons. Il que les Sénégalais, on doit les respecter. Après, les gardes, ils font le travail dans des conditions très difficiles. Donc, nous devons les demander de plus en plus. C'est nous dans nous, tu vois. Donc, nous devons nous accélérer les choses, qu'on essaie de créer des prisons UBS, modernes, euh, qu'on crée des activités pour les prisonniers, frustration, réinsertion bi gën a mën a yomb quoi you know xam naa sonn maa nekk maa leen di soxla yéen ñëpp